alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom di julli di sëlmal ci ab yonenteem sallallahu alayhi wa sallam dellu si waat nañu ci xàll wu yaa wooy nga xam ne leeral lu dul pas-pas bu set te nuru ak mel comme la yonent bi façoon ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain ci fàttaliku bu gaaw bu ñu fàttalikoo ci xutba yële weetu am na ci joo xam ne ñu ngi ko jagleeloon ci sunna yonente bi sallallahu mooy lan ak ji nga xam ne nit ñi aajo woo nañ ko sunna soosee kooka defoon nañ ci ñaari xutba la ko jiitu defoon nañ ci ittabiu wala tabtadiu faqad kufiitum nañu topp sunna te bàyyi yi te xam ni coono sos yonent bi fegal nañu ko ak jiitu woon na ko ay xutba yoo xamante ni yépp mi ngi leeral ci yenn ci mbir yoo xam ne nit ñi dañ koo jàppee diine te fekk du diine waaye bi daal comme amoon nañ ci topp sunna bañ a topp xutbay tey jii mi ngi joy ak itanar a topp insha allah ci qawaidu muhimma fi l ay règle yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne borom xam-xam yi dañ koo tër ci pour xam ni topp gi muy topp yonente bi saa sallam wér na na jël règle yi mu nattu ko ci xam ngeen lu nekk ci àddina rek am na nattukaay lépp loo gis ci àddina am na nattukaay waaye nit ki dafa war a topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam su ko toppul xalku na waaye su fekkee ñi ngi koy topp ci nit te vérifié wut nag topp gi wér na wala déet la yëg ni mi ngi yàqoor toom kon faw mu vérifié ci règle nan la ñuy toppee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak topp ga ci lan lañ koy topp ñu xam ni ñun ñëpp diiney lislaam dafa tënku ci ñaari tur ñaari waxyu muy alquran ak sunna waaye la fekkal yu sell ya di saxal xel yu sell yëpp dañ koy fekk fekkal yu sell yi mel ni alquran ak sunna xel yu sell yi nga xam ne ñoom la suñu borom baaxee ñoom bu ñu déggee tegtal yooyu kat dañuy daal di nangu te xam ni kat suñu borom subhanahu wa taala li kon lépp lu ñu dikkalati ay digal ak ay tere bàyyi ko ci yàlla akub yonenteem loola li ñu war mooy ñu daal di koy jël bu dee jëf la ñu jëfe ko bu dee bàyyi la ñu di koy bàyyi te xam ni ca loola lekk nañ war a amee ngërëmal suñu borom ndax directives yi digle ak tere kooku suñu borom tegu ko ci loxol kenn déedéet même yonente bi alayhi salaatu wasalaam li muy digle ak tere soo gisee sunna nekk wax yu mooy li muy digle ak tere suñu borom ko ko wax yu ndax inna nahnu nazzalna a dikra li tubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim yàlla moo wàcc ci yow sunna kon sunna la ak lay wàcc la dëgg la du bokk ak alquran ci xam ne taarif bi ko borom xam-xam yi joxe ndax laasit alquran moo gën a foor ndax bi xurufihi wa maanihi lépp yàlla subhanahu wa taala moom moo ko wax yonente bi alayhi salatu bi duni xadis te bokk bokkut ak xadis lii moo taxoon salafu saalix muy mag ñu baax ñu ne nga xam ne ñoo nekkoon ci ron keppaaru yonente bi mu yar leen ba fi yonente bi jógee ñooñu am ñeneen ñu ñu yar te ñetti téeméeri siècle ya nga xam ne yonente bi ne dina garanti doog a faatu ci mbaar ñoom day pour ñu àtt nit ni ku baax la wala ku bon la comme ñun ni ñuy faral def da nga dégg diw liw diw de góor gu baax la diw de nangam déedéet maanaam yow kenn laaju la yow kenn laaju la parce que mbirum mbaax ci boppam ni ko wolof yi di waxee ak ni ko lislaam di waxee bokkut ndax ñun am na jëf yoo xam bu gën defee ñu ne ku baax la fekk déedéet sunu borom mu ni laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib ju lekk woo rek yooyu taxul ñu naan mbaax waaye mbaax ci boppam walakin al birra man amana billah mbaax mi ngi tàmbalee ci sa pas-pas wér fépp koo xam ne lam pas wér bu ko nit ñi waxee baax na kooku ne yëg di baaxul ci suñu borom gëm àllaaxira di ko waajal di ko defar fépp koo xam ne amul teew même bu la nit ñi waxee baax nga baaxoo kon nekkee pour nga fekki baaxat mbaax rek foo nga dellu ci alquran kon mag ñooñu pour ñu wax ñu jëm ku baax la ñoom dañuy dellu ci xool ay jëfam ma kaana ala al athar fii moom mi ngay xeeñtu di xool fa yonente bi tegoon tànkam mu di fa teg tànkam moo tax dafa taalif téere bu am solo tuddi ko al-I'tisaam nga xam ne daanaka rek téere la boo xam ne moom boo ko yëree ba mu jeex moom moom bidaa moom dañ ciy fer ijji moom nee na saa boo gisee benn waay muy def ay njommalaan ak xarbaax di naaw ki ngelaw léeg teg ab seesam ci kaw ak jaww ji nee na loolu bul ko faale seen ci ko xoolal leneen leen ko lu may xool bu ñu la ngay xool mooy fan la teg tànkam su nekkee da koo teg ci sunna yonente sallam bàyyiwu ca dara yëgal ni lii ay kiraamaan la yàlla moo ko baaxee waaye su fekkee da ngaa gis ñu def ay xarbaax naaw ci ngelaw lekk ca chaise bi ca kaw asamaan taat lu ne ci ay xarbaax mu di ko def te boo xoolee su noyal fa saxam tegu ca tànkam yëgal ni kii seytaane moo koy dooleel te xam ngeen ne loola lu yomb la lu yomb la def ko def loo ko nit moo tax imaamu Zuhri di sëriñ bu mag ci sëriñ imaamu Malik mu ne min allahi risala ñun daal dañuy taxaw di déglu message bi daal yónnente gi yóbbante gi ci yàlla lay bàyyi ko wa ala rasulil balaa te yónnente bee ko war a jottali yàlla lam waroon ko mooy yónnee ñu yónnente bi la ko war mooy lan ko yónnee mu ko ñun li nu war wa alayna taslim mooy lu ñëw rek ñu daal di koy jébbalu nangu ko téye te di ko jëfe imam ibn abil izz ci ngiram alxanafiya taalif na téere boobu nga xam ne imaamu saxaawi moom la wala sarxana téere bi imam taxaawi taalif tuddee ko al aqidatu taxaawiya di boole bokk ci téere yi am solo yi ñuy tàmbalee pour jàng pas-pas téere boobu ci téere yi nga xam ne kuy jàng pas-pas des des cee tàmbale daf ci oyofi la bokk yaatalut ba xaabaabal nee na tànku kenn du mën a sax ci lislaam lu dul rek dafa feeñ ci moom su tegtal yi dikkee mu nangu ba pare fas yéene koo jëfee waaye su amee lu muy nangu ak lu muy bàyyi rek ni kooku moom daanaka matut kopp nee na lim ci nam wax jooju mu ne du dëgër jébbalu kenn ci yàlla lu dul dafa jébbalul ñaari wax yi muy alquran sunna te ko ommatul te it nag du ko weddi du ci xelam du ci xolam du ci ay jëfam moo tax Ali ibn Abi Talib nee na nit ñi bu ngeen dee wut ku ngeen di roy di ko toppandoo téegee na seet ñapaatu ba noppi ndax ñooñu ñoo gën a wóoru ndax nit di nga ko séen muy dem nga toog ci moom ak mbaa ah ba nga yeggale ko fu mu yeggul fekk sax moom ci waa sawar la bokk wal ayaadu billah parce que xam ngeen ni yonent yàlla bi ne nit dana jëf jëfi waa àjjana ba dara desul lu mu dugg àjjana diggante mag xatam mu def jëfi waa safar tàbbi safara nit dana def jëfi waa safara ba lépp nit ku bon la buy dee tàbbi sawara diggante mag tàbbi àjjana benn xatam mu faatu tàbbi àjjana comme nit ñi innama al amalu bil xawaatim moo a Ahmad ibn Hanbal saa boo ko mosaan wax ay wax yaa ka baax ak yaa ka lii sa taalif mu ne hey innama al amalu bil xawaatim bu ñu kenn rey innama al amal jëf yi daal bil xawaatim ñu ngi koy nattee ca mujjantal yi ndax kenn xamut ci lan ngay xam ngeen ay nit maaxoon nañ ba ñu xam leen taarif bi leen nekk li ñu dem ba seen mujjantal dund ñu dévié wu te loola amoon na ay benn benn ca saxaaba ya sax sax wa illaa am na ñoo xam ni bon nañ ba ñëpp di ñu xëy xëy gindee ku nekk ay borom xam-xam yoo xam ne wallahi taalif nañ sax ay téere bàyyi doog a faat foofu kon mu ne kon li ngeen war a def mooy roy ñu yàgg ña lii day niroog ak Abdullah ibn Mas'ud man kaana mustannan fal yastanna bi man xad maat kuy roy sunna na nga toppandoo a faatu te maa nga te nam mu saxaaba yonente beeg seeni ndongo ndax ñoo gën a mucc ay jëf gën a set ay xol gën a dégg diine gën a baax gën a bëgg yàlla tey ñoom ñoo nekkoon ci lu baax lu leer li Ali Zanad rahimahullah ci borom xam-xam yu mag yi la bokk mu ni sunna sax day moom pour wan la ne la mbir yi dee su ko jagleel am xel wala ay nit ndax sunna léeg-léeg dafay ñëw waaye bu dee tam xel nga ko natt rek sa xel du nangu bu dee ci xel rek nga bëgg a rek xel mi day bañ lu tax xel di bañ parce que dafa xel dafa dëppuwul ak loolu mu joxe ci misaal muy tey su fekkee dañuy jigéen bi bu gisee baax ba baax bi jeex na fay koor bu mu fay xel du nangu xel dana lan moo tax ñu koy fayloo koor te duñ ko fayloo julli te julli jaamu yàlla koor di jaamu yàlla tey sax nag jullee gën a laaj koor gi ndax moo ko jiitu tey baax le ko moo gën a wóor baax le lee te ñaar yëpp baax le ko moo dafa baax kon xel du noonu déedéet waaye nag xel moom ci boppam maanaam dafay soppi saa bu tegtal waddee li olof yi naan li arab yi ida warada al athar batalan nazar saa bu texte leer wàccee rek gis-gis moom dàqu na amatul valeur foofu kon nit ñi su fekkente ni bëgg nañoo topp yàlla ak yonenteem nañu yëg ni maanaam xel yi ci boppam mënul jariñ lu gën a faram a jariñu te xel yooyu xel yi ñu ci namm mooy xel yi nga xam ne dafa duy ci bënnëb ku am ngëm yàlla bu ko defee yamsi yamsi ala basiratin min allah wa yamsi bi nuurin ala nuur day dox ci gis-gis boo xam ne yàlla moo koy defal waaye leeru ngëm yàlla ga leeru alxuraan bu këpp ci kawam day gën a leer rek jaadu na ñu xam ni benn jaamu yàlla amul kenn ci ñun mu sañtaa sóobu ak ku ko def lu mën a doon ku mën a doon lu dul dañoo xam lan la ca yonente bi wax alayhi salaatu wasalaam ndax yonente bi nee na amila amalan ku jëf benn jëf laysa alayhi amruna amul ci amul ko suñu ndigal huwa radd yàlla da la koy delloo léegi kii nag ngay nattee xam ba xam ndax yow yonent bi ay waxam moo ëpp valeur ci yow wala diw sàngam ay waxam moo ëpp valeur ci yow gis nga foofu soo seetloo ni ñi nga xam ni tey dëgg na boo yi xool nit ñi da ngay gis ñaari xaaj wax dëgg yàlla am na ne ay nit ñu ngi leen waaye dëgg dëgg ñu leen di jàngal am na ñoo xam ni ci ay mbooloo ña ngay topp ay nit dëgg dëgg mën a ña ngi leen di jàngal ña ngay jàngale ña ngay leeral ña ngay moytoo lu bon ña ngay diglu julli di bàyyiloo caaxaan boo nee sàngara ñu ne xaram la boo nee njaal ñu ne xaram la takk nopp ñeenti soxna ñu ne xaram moo la ñuy islam tere ña nga cay jéem lañ man ñooña la ñuy ñaan mooy yàlla bari seen imaam am nañ fi ci foo dem ci adduna bi am na yeneen ñoo xam ne ñañ tënk ci boppam waxuma la jàngalul leen déedéet duñ bëgg sax ñu jàng nga xam ngeen ni jàng dafay tax a ràngate ku nit ndax nit ki bu fekkee da nga topp ci ay yëf yëfaan nga dem ba mu yàgg nga jàng te xam ngeen ni xam-xam moom dafa doy waar parce que li wolof yi lépp naan ku euh, aj da ngay bañ ku téen ku denc ci rondal da ngay bañ ku sëgg xam-xam noonu lay def xam-xam moom bu dikkee day xool la ne ca kaw lépp lu mat a aj mu ne aji leen bële bële moom warta aji fii la war a toog ci suuf beneen ci ci rond gi mu jël génn leen bii na aji ca kaw noonu muy détaché mbir loolu moo tax am na ñoo xam ne bëggul nañ topp jàng ñu mel ni ñu toog ni nit war a topp nit di ko liggéeyal ak nit déedéet waxuñu loolu de loolu wax ñu loolu de nit mën naa topp di ko liggéeyal fekkam ndax am na ñoo dëgg yàlla man nii di wax sama jàngal lu ëpp fukki at ak juróom maa ngi doon bayal di xëy ko bayal di ko bayal waaye nag maa ngi sant yàlla rek tuuma ko ndax kat dëgg yàlla alquran bi foofa la ko jàngee téere yi ñuy jàng fii ci réew mi ci dëkku maari bi yëpp foofa lañ ko jàngee ah waaw soo ko tey da koy mayal dañ koy rooteel ay garabam ndax dalaa amal njëriñ dalaa defal lii nga defal ko la ca def te loolu mooy lu amoon bu njëkk bokkut ak lii am tey am na xale bi dañ koy yóbbu di ko fayal pour mu jàng deful dara moo tax njàng mu njëkk moo doon barke tout ça tout ki lay jàngal nga di ko liggéeyal di sonn ci moom mooy ëpp barke fuuf loo xam ne defaloo ko dara da ngaa ñëw rek di ko mu jàngal loo xam ko déedéet dëgg la ñu am barke nag waaye du tolloo bële kon loolu kenn dàq ko waaye wax bu koy yées di dàq mooy koo xam ne moom daanaka yow moom xamoo sa baay xamoo sa yaay yaa ngi koy baal di ko yëppal di ko bayal di ko góobal di ko xaawul di ko defal lépp waaye moom daanaka diine jàngalu dara te firnde bi gën a rëy nga xamante ni mënees naa nekk défi bu ñuy laata ñun ñëpp gis nañu woote diine yi ngeen di gis yëpp ci télévision yeeg yu ko fa mu tàmbalee ba fa mu jeexee wallahi xam tuuti kon mani la doo ko dégg ab xadis sax bi yonent bi wax ay xuraafaat ak naxata kandaga tangalangaay yoo xam ni amut bopp amut geen la ñuy wax nit ñi ba mbir mi jeex ñu dem te it yamu tabaa mooy la la yonent bi gën a bañ sallallahu alayhi wa sallam ci doon tere day dajaloo foofu lu mel ni jaxasoo góor ñi ak jigéen ñi ak ila axiri yi kon topp ci boppam ki koy def mooy ka topp yonente bi alayhi salatu wasalam kon mbir mi du caagee dees koy dàq aslan waaye dees koy saxalal ay règle yoo xam ne nit ñi ca la ñuy bu ko defee nit ñi daal di yeewu moo tax lépp loo xamante ni nit ki mi ngi koy woote su fekkee teg na tànkam fa yonente bi tegoon tànkam alayhi salatu wasalaam ànd ak doomu aadama dina am ay njuumte nag waaye du tee kooku moom al hadi al mustaqim moom tege na ci yoon bi lépp jublu ci topp yonente mooy lépp loo xam daf ko doon nga di ko def lépp lu doon tere nga di ko bàyyi xam ngeen yéen sax am na yoo xam ay sunan la ay sunnaam la te pare na nee na ci koo xam ni xeme moo xeme moo bëggul sama sunna yëgal na yow bokkoo ci man léegi kenn ku ne ci ñun mu laaj boppam ñaata mbir la dégg ñu ni ko yi sunna yonente bi la alayhi salaatu wasalaam te jëfewu ko gis nga te kàddu gi maa ngi ko jëmale sama mbokki ndongo yi gis nga sunu fi nekkoon am na ci ñoo xam ne léeg-léeg mën ñoo wax mbir sax nga gëstu ko fekk wéru waaye xam nga lu leen ko yóbbee mooy ñoom dañoo bonkoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba saa bu ñu déggee ne nangam sunna la ñoom duñ topp ndax wér na ak wér bi ñu jël di jëfe xanaa ñoo ñaani gën a baax ko kon ci buntu boobu bu lañ doon dugg parce que jamono ji tey ñi xam-xam avancé ba nit ci mën a xàmmee lii kat wax ji la bokk lee bokk ci wax dëgg yàlla loolu amul woon ci jamono jooju kon ñoom lépp lu dégg ne lii dañu daal di jëfe am na génn góor gu ci mag bu ñu xam bu ma tudd turam ñëpp xam ko tam sax ah kenn ci waa këram nit ñi ñu ni moom kat moom am na téere bu mu taalif boo xam moom toppatawut ndax liy wér ak wéru moom daal yonent bi ñeen na lay bañ a dégg ko déggee day jël dugal ci biir téere kon moom mën doon jéem kenn ka laay ak comme tool ko defee kon nit ci la war a mel lépp lu mu dégg ñu ne yonent bee ko wax na vérité ndax jamono ji vérité yomb na wér na wala déet su wéree coono na bàyyi la mu jàppoon daal di jàpp li nga xam ne moom la yonent bi nekkoon alayhi salaatu wasalaam yonent bi nee na man de yàlla daf maa jox alquran ak lu mel ni moom ma boole koog moom yàlla daf maa jox alquran ak lu mel ni moom ma boole koog moom yàlla daf maa jox alquran ak lu mel ni moom ma boole koog moom lu mel ni moom lu mu doon mooy kon jéggal bi ngay jéggal alquran xormaal ko jéggal googu la ñu war a li nga xamante ni moom mooy sunna moo tax Ata ibn Abi Rabah borom xam-xam bu mag booba jamonante ak Haruna Rashid nga xam ni ñi nga xam ne ñooy séddale xam-xam ak ku nekk la nga gën a jekk dañuy wax ni masala yi xaj xaj pour gën koo jekk ko ataa ibn abi riba jamono jooju jafe na ataa mu ni lim ci nam mooy taatu rasul topp yonente bi mu ni ittibaaul kitaab wa sunna mooy topp yàlla ko yonenteem al alaamatu saadi mu ni lépp loo xam dafa bàyyi koo ci yonente bi alayhi salaam dafa waral ñu jël ko waaye waru ñoo juuyoog moom ak ngant boo mën ci joxe nag sama bàyyi moo waxoon lii sama maam jiw ci lii la nekkoon xam nga yooyu tamit wax dëgg yàlla yonent bi sax alayhi salaatu wasalaam ci boppam alquran da koy yedd ca loola inna wajadna abana ala umma suñu bàyyi ñu leen fekk ci nangam déedéet suñu bàyyi ñoom tilka ñooñu suñu war a mën a ummatul xeet lañu wax xad xalat ñoom dem nañ laha maa katabat lañ liggéeyoon ñu yóbbaale wala kum maa katabtum yéen li ngeen di liggéey ngeen di indaale te wala tusaluuna am naa kaanu yaamaluun soo dajeeg yàlla mu leen ak samaam déedéet mbokk yi alquran la ñu surtout baqara saar yu njëkk ci alquran wala tusaluuna amma kaanu yaamaluun la bàyyee doon def suñu borom ne du ma la ko laaj yow yow sa li nga doon def laa lay laaj comme ñoom lan doon def lan ca baax la ñu baale ko lan ca safaan la duñ mën lu dut ñoo ñëw seen ginnaaw ñaanal leen ci yow nag li la mooy nga xool njàngale yonente bi alayhi salaatu wa salaam même bu li sa bàyyi nekkoon ak li sa si jamono yonente alayhi salaatu wa salaam du question que génn ci dem sug l'islam déedéet parce que yonente bi lim doon da dafa moo tax boo seetloo ndaw yi ku ci jàng tuuti gindeeku commencé wax lu bokkut ak lam xamoon nit ñi dañuy commencé bañ waaye jarul bañ te loolu buñ ne bañee yow ndaw li jarul nga cay mer ndax loolu la ñu waxoon Saalix wala Huud boobu bi Huud commencé di dem ci jàkka ja di soo rooku ci bàyyi ah, yi gis ci kat ndaw lii kat jar naa fonk bàyyi daal di koy fonk mu commencé di wax ay yëf yëfaan yoo xam ne bokkut yam xamoon ñu ne ko yow day alku nga laqad kunta marjuwan qabla hada yow ñun suñu yaakaar yëpp ñu ngi ko wékkoon ci yow ngir ah la su fekkee ci mbaax lañ ko wékkee wax dëgg yàlla su dee lii muy wax la nangam ji foo ko teg mu ne maa ngi ko teg ci téere sàngam nangam ji ko teg mu ne xadis wax dëgg yàlla nag léegi nit ñi dañuy jàng nag bu baax a baax a baax dañuy jàng kon yu mel noonu nit ñi ko bàyyi xel ñu xam lay bi ci def mooy lépp loo xam ne yonent bi da koo bàyyi woon ci ay jaamu yàlla sual bi ñuy laaj mooy jëf sàngam jii ngay def jaamu yàlla nga ci jublu wala jubluwoo ci jaamu yàlla boo ci jubluwul jaamu yàlla doo ci am tiyaaba demal defi amul problème foofu moom amul jafe-jafe waaye li ëpp ci nit ñi ñi def jaamu yàlla lañ koy jublu laaj bi ñu lay laaj mooy lii ngay def amoon na ci jamono yonent bi ak saxaaba ya wala déet amoon na nga waaw ñu ne ana tegtal ko amul woon nga ni déedéet ñu ne la na gën a bëgg mbaax te law kaana xayran la sabaquuna ilay léegi foofu nag am na benn sew sew bu ci am bu ci mag di boole mooy ndax muqtaba bi tax di ko def tey amoon na wala déet aajo woon nañ ko ci jamono jooja wala déet laa sax ka ni aajo woon nañ ko woon ko ñu ni kon la ko ñu aajowoo ko pare defuñu ko mooy bu doon mbaax danañ ko def ñu dem ba yàgg ñu ne woon kat amuñ ko aajo loolu na yu bëree bëri nga xam borom xam-xam yi l'islam di séddale ci almasalih al mursala nangam ji kat amul woon waaye am na tey lu tax parce que jamono jooja amul woon waaye ñoom dañ koo aajowoowul woon mu ngi mel ni ñàkk noddu ñaareel gi ñuy nodd ndax ba yonente bi dund genn nodd kese la day rik mu addin bi nodd ñu dund ñu dem ba Madina yaatu bi Madina yaatoo marché bi yokk dëkk bi yokk osman bi yokk ci geneen noonu gis nga ma bëggoon bu ci yokk aajo moo tax mu def ko tey saxaaba ya déggoon njàngale yent bi fekkee nañ ko te kenn ŋàññi fa osman moo tax mu daal di dugg si ba pare yonent bi mu ni alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafa arrachidin almahdiyin wa osmana min haula te osman ci ñooñu la bokk kon kay jaamu yàlla yu bëri kay nit ñaa ngi koy def defe naa joxe woon naa ci misaal ci istabiu wala tabte dafa xam ko fii dem si tam xarit sus nga lu gaag xul wallahu ahad yaag benn tegtal benn tegtal ci shariatul islamiya bu wér buy wane ni saa sàngam dañ koy jàpp di ko baamtu nangami yoon amut wa kafa allahu almumin alqital nga noppal jëru ngay gëstu ci bu sori benn tegtal la fara wala ixlaas wala naas wala fatiha dama ne amul benn tegtal bu wér ci sunna buy wane ni saar sàngam mën lañ koy jël di ko moo xam di ko wér di wax moo xam di ko wàññi di amul nga noppalu bul wér yeneen yi du xul wala wala addu beneen fukki xel ak benn yi ci des ci biir la bokk amul kenn ku la mën a wax mi ngi nii ci tegtal bu leer am nañ fa ay kàddu yu sunna yoo xam ne moom lañ tuddee ay kutubu sitta Buxaari ca la Muslim ca la te ñoom ñaar ñoo ci gën a wér Abi Daawud ca la Nasaayi ca la Tirmidi ca la Ibni Maaji ca la nga yokk ci buñ al am nañu al kutubu sitta ah Ibn Hibbaan ñoom Muwatta Maalik ñoom gis nga ci kàdduy sunna yooyu doo ca fekk mukk lu wér muy saxal lii te yooyu daanaka mooy sukkandikuwaay yi gën a mag yi xeetu lislaam yi di sukkandiku ba faaw kon jaamu yàlla jii nga xamante ni ñu ngi koy def soo gisee tës ngël ma du leen alxaafid ibnu Kasiir mi ngi koy indi ci bidaaya wa nihaaya wax la joo xamante ni ay nit dong ko wax te fas sax wérut wax ju wérut ndax tàllale ga mu jokk wérut mooy dañoo génn ci gaal gi seen bët yi fu lu ñu susugal laa ah parce que mu fekkoon ne loolu la demee nit nit ki tam da ko def waaye bul ko saamu tam xarit ba tam xarit xanaa ba ñu ne ci daara ji dañuy wax boo tusungalee doo wàññi ci at mi boo sël moo ci bool bi ñu defoon cere ci kenn raxasu ko doo doo doo wax yoo xam ne dañu fulla loolu weer digawul seen ba asal tam xarit amul lu ko yonent bi saxal lu dul woor di ko tukkeel ba mu dem ba mu yàgg mu ñu déwén dinaa woor juróom ñeenteel ba balaa déwén mu jóge ci kon waxoon naa xaaji sunna yi ak sunnatul qawliya wa sunnatul fi'liya wa sunnatul taqririya sunna boo xam ne da koo jëf ak boo xam ni da koo wax ak boo xam ne ni da ko jëf wala wax ko mu saxal ko ca ak boo xamante ni maanaam euh, moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da koo jëfe kon yii ay mbir la yoo xamante ni ay règle la yu nit ki mën a tënkee pour mën a natt lan mooy sunna ak lu dul sunna noonu nga koy toppee nag xeeti jaamu yàlla yu bare bare bare weeru rajab moom bu yegsee moom moom daanaka mu xadis wala xaraj moom li ñuy waxal rajab daa bëri lool rajab mooy lii rajab mooy nangam xadis yi ci ñëw daanaka yépp dafa baax dara yoru ci leen rajab moo jiitu ci weer yi jiitu weeru koor yooyu xadis yi ci ñëw dafa baax saabaan bi dikkee ka daalika nisfu saabaan te guddi ga woor yi yépp amul safaan déedéet benn bu ci nekk yi baax la gis nga boo seetloo ba ci biir am na ci muhaddisul yi euh, borom xam-xam usul yi ku ñuy nekk yi nuux ibni abi mariam kooku mi la wadaain bu duggee ci kàll la ñuy wax ni kàll la xadis yi wér parce que day waxu day fab mu njëkk ko jàppee pour wan la ne la maanaam bu ngeen fàttali ko waxoon naa leen ci bidaa li tax nit di ko def ay jubluwaay la doonte mën naa bañ a nekk lu bon biñ ko laajee lu tax nga def ay xadis yu bari te wérul ci fadaayilu alquran ngëneelu alquran muy dafa seetlu ne ay mbir dafa commencé Malik Abu Hanifa Shafi ak yooyu mu gis ne nit ñi dañoo topp njàngum sëkk bi ba bàyyi njàngum alquran te loolu metti ma lool ma kër ya xadis yu leer pour rek nit ñi am gënal alquran jëm yéene bi baax na waaye jëm jëf ci baaxu parce que yent mu ne ku ma fenal benn fen da ngay daan safar waajal sa kër ci sawar kon yent bi kenn du ko waxal lu waxul alayhi salaatu wasalaam kon xeeti jaamu yàlla yi ak lu mën a doon nag yoo xam ne nit ñaa ngi koy def te amul woon jamono yu tasam te amul ko woon aajo wala amoon nañ ko aajo waaye defuñu ko woon léegi ni kon loola su baaxoon ñoom danañu ci jiitu moo tax imam Maalik di wax ni fa maa lam yakun yawma idin diinan fa lam yakuna diina lu nekkul woon diine keroog àddina du yàgg mukk ba mu nekk diine te it bari na waanaw yoo xam ne tey ñun ñaa ngi koy ndeysaan di ci toll wallahi da ngeen di yërëm yow mi jàng da ngeen di yërëm parce que da ngay gis ñu nga tey comme concentration boo xam ne buñ ko defoon ci julli ji nañ joxe misaal bu gën a gaaw rek tey bu ñu nee asalaamaaleykum sëlmal ci julli laa saq ne am na la ko yonente bi jàngale pour wane ne la nit ñi concentré wu gi muy concentré wu ci bidaa bu ko doon def ci jaamu yàlla yi mën naa jaare fa nekk wàllu yu da ngay gis koo xam ni taway mi ko rambax rambaxi ko tap mu julli julli gi dem yoonam te bu paree mën naa téye kursam toog diir boo xam ni taway mën nga fee dem tool ba dellu si ngir ay yëf yëfaan yi muy def waaw léegi moom lu tax lu tey kon mu def julli gi julli gi baax te da ngay gis nit ñi léeg-léeg yéenay def te wuute na sunna dëgg la am na ci ñu sax ci sunna loola def ko kenn waaye la juure ak sunna la ñu waxee nit ki bu ko defee yàlla du ko ko nangul déedéet ndax suruutu qabuuli l amali isnaan al ixlaas wal mutaabaa sart yi tax yàlla nangu jëf ñaari mbir la da koy def te yàlla tax ñaareel mooy da nga koy def mu dëppoog la yonent doon def waxoon naa leen sama Abdullah ibn Mas'ud ba ba Abu Musa Asari ñëwee ci néegam ba ni ko xay am na dëkk baa ngi waaj a tàkk lu xew mu ne ko man kay nekkal ñëwal rek ñëwal rek mu kaalaw génn ñëw fekk ci jàkk ji def benn mbooloo benn cercle kii naan waxa subhanallah téeméer yoon wañu leen ko defal nangam defal nangam daf leen a yuuxu moom Abdoulaye ibn Mas'ud fekk na taxaw ñu ne ci buntu jàkk ja mu ne leen waaw yéen yonent bi alayhi salaatu salaam daal li mu bagage am yaa ngi fii jaatee nii war a ñu bëri ci démb dong la faatu yéen kenn ngeen ko mën a topp yeneen diine ju bees joo xam ni saxaaba yi yonent bi xamuñu ko gaa ko ni wallahi ya aba abdirahmani ma aradna illa alxayr giñ leen ci yàlla yow abdurahman ñun bëgguñu lu dul daf leen ca tegal wax ju am solo mooy muridin li xayrin lam yusuf aka bari ku bëgg yiw waaye du ko am parce que yoon wam ko jaare moo jub woowa gis nga ñu jub mu ni bala ngeen koy nekk di wàññi li ngeen jot def ci ay tiyaaba da ngeen dem ngeen wàññi seen bàkkaay ndax ki ngeen defal tiyaaba yi garanti na ko du du ko du ko du ci juum kon loolu jërul wàññi moom xam na ko moom sunu borom subhanahu wa taala kon sopp yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam al allaama ibni kathir nee na ahlu sunnati wal jamaa ñi nga xam ne ñoom dañu bëgg a roy yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñoom dañoo jàpp ni kat lépp loo xamante ni saxut jóge ca yonente bi alayhi salaatu wasalaam saxut jóge ca saxaaba ya ah su boobaa dañuy jàpp ni loolee kat bidaa lay tudd ndax su fekkoon ni baax na saxaaba yi danañ ko si jiitu dëgg la tagg yonente bi lu baax la kenn weddi wu tagg yonente bi xasaan doon na ko def yonente bi yéegal na xasaan ci kaw minbar bi ni ko wayal te nga xam ne fii yaa ngi défendre yonente bi yàlla mi ngi ànd ak yow jibril mi ngi ànd ak yow Kaab ibni Zuhayr ca ويمض أمطل وقال السعاد فنفسي a مبتول da koo taggee yonent bi mu summi benn manton bu vert may ko ko ak ñeneen ak ñeneen Abdoulaye ibn Rawaha ñun ñëpp ñu doon waaye problème bi mooy lan doon taggee yonent bi ndax am na ëppal bu ci am déedéet ndaw sa dikk ne yonent bi man kat damaa yéene woon tagg la ndax boo Badar ci xeer bi yonent bi ni ko waxal ndaw si di wax di wax ba àggal ba muy àggal mu ne ñun sax am nañu yeneen ci boo xam ne sax yàlla da koo xamal kumpa mu ne ko déedéet loolu moom effacé ko mu ci bu ko ci boole kon gis nga lan nga wax la bi ñu ko dégloo mu bàyyi ko ca waaye nag am nañ ko xam kumpa mu ne ko déedéet bii bokk ci tey nag ay xeeti way yu ñuy jaamoo yàlla ay xeeti way yu ñuy jaamoo yàlla yoo xam dëgg dëgg ak ëppal da caa am nag ak ëppal ndax yow yonent bi alayhi na ci li nga la ne ca lawxel mahfuus loola laa sakka ëppal bu ëpp yow yonent bi bokk na ci sax moomeel àddina ak mu jëm loolu ak ku jàngul mu jàngoo loolu la yan rek nga def léegi yooyu ay xeeti wax la yoo xam ne yu ëpp la xamaa na nuqta bii muy tomb bi ñu toll dees na ko demel xutba ca kanam muy annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bayna guluwi alxaalin yéen saa salaam ci diggante ñi nga xam dañoo ëppal ci ba di ko waxal lu lu bokkut ci moom ak nga xam ne wax dëgg yàlla nag dañ koo wàcce ba wax dëgg yàlla martaba dañ ko teg nag yonent bi war naa gën a yéeg jooja nga xam ni lu équilibre lay doon nekk ci digg bi lan war a saxal yonent bi ak luñ ko war a saxal sallallahu alayhi wa sallam ñu yëg ni lépp loo xam ne ñun aajowoo nañ ko suñu wàllu na ko alayhi salaatu wasalaam moo xam ci mbirum jàmm bu jàmm dee xew la ñuy soxla lépp yonent bi leeral na bu xeex la ñuy soxla leeral na ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si wàllu siyaasa muy politique nu ñuy gérer xatta am nay buntu wax boo demee ci téere fiq yi moo xam Buxaari la moo xam Muslim moo xam sunan yi la da ngay def baabul imaara buntu boo xam day wax ni nu ñuy gérer jiite ndax imaara gi dana bokkut ak président tey nga am président day am ay ay député ak ministre déedéet li dana mooy amirul muminin am ay wusara am ahlu suura yooyu nag boo demee ci kàddu sunna yi am na ay buntu yu koy jàngale amir nii la war a mel nii la ñuy tànnee amir bu ñu xëccee tànn kenn ba noppi keneen bëgg ci ñëwaat di wax ne nañ ko fal kooka nañ dagg baatam yëpp islam jàngale na ko te islam amul lu mu bàyyi lépp loo xam ne nit ñaa ngi koy def nañu nit ñi maanaam nit ñi aaja woo woon nañ ko ci jamono jooju wala déet waaye boo xoolee ci kàddu sunna yi bu dee lu ñu aaja woon war koo jëfee rek loolu sunna jàngale na ko wa kadalika ci wàllu iqtisaad ci wàllu économie xam ngeen ni kuy jàng alquran xool saaru la nga xam ne moom la yàlla tuddee yusuf ah ak régler bu am solo ba nga xam ne Youssouf noonu la réglé woon problème mu économie bu ñu amoon ci jamonoom ba tax buñ déposé candidat di wax ne ij'alni ala xazaini al ard borom xam-xam yi ñu ne fal leen ma kenn du ko wax ndax yonent bi nee na képp ku taxaw naan fal leen ma mu ne du leen ko fal kooku yeyewul beneen xadis mu ne ku taxaw ni fal leen ma ba ñu fal la ko yàlla seetaan la waaye képp koo xam ne ñee ko fal forcé ko suñu borom dimbali ko lan moo tax nag illa istisna mooy xësab Yuusuf borom xam-xam ne su fekkee mbir daa ñëw ñu gis ni nga gis ni keneen mënu ko fi ku dut yow te yaakaar nga ak ragal yàlla am ca te it boo ko bàyyee keneen mën na koo foye sañ ngaa taxaw jël ko imtisaalan bi Yuusuf wala tasbihan bi Yuusuf ij'alni ala xazaa'ini al-ard fal leen ma nangam fekk jubluwaay bi defar la ku ne ah, yàlla bi laaj nañ ko kan moo gën a tedd mu ni Yuusuf alayhi salaam ndax yonent la doomi yonent sëtëb yonent yonent doomi yonent sëtëb yonent kon ku ku askan wu tedd la kon Yuusuf alayhi salaam def na lu mel noonu kon nit ñi ci seen jëmmi bopp nu nit ñi lépp lu ñuy aajowoo islam leeral na ko sunu borom mu ni wa nazzalna alayka dikra tibyaanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin wàcce nañ ci yow dikr muy leeral lépp lu ñu aajowoo yërmande nekk ci mbégte na ci ñeen ñi gëm yàlla soosu nax la suñu borom ni al yawma akmaltu lakum diinakum moo lay wane ne diine ji mat na yonente bi daal jàngale na alayhi salaatu wasalaam nit ki bu jullee ba nopp mu def baaqiyaat saalihaatam yonente bi day jàngale ci askar yi suba yeeg ngoon yi nit ki kursi mën na koo jàng suba da koy aar seetaane ba ngoon ngoon da koy aar mu fanaan ba suba jot falaq ixlaas naas ak nit ñi nit ki di ko jàng ñetti yoon baadal fajri ñetti yoon baadal maghrib mu mën laa musal astaghfirullah téeméer yoon la ci nit bi jàngale subhanallah téeméer yoon la ci jàngale alhamdulilah téeméer yoon allahu akbar muy ñett yi def baax salahat jàngale ci biir téeméer subhanallah wa bihamdihi téeméer yoon laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku alhamdu ala kulli shay'in qadir téeméer yoon daanaka xaw sutuko nga ni yi mooy lim yi julli ci yonente bi jëru ci lim jëru jëru lim parce que seen lim la wulu yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima buñ ne kaay leen di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam nit ki nag sañ daa seet comme moom kilifteefam da koo jox boppam yàlla tënkatu ko ak yonenteem sañ naa seet siixa ba ko neex mu jullee ci yonent bi waaye dañ daan ko nit dafay ñëw di sukkandiku ci lu bët sukkandiku ndax bu nit ki créé ab mbiram mu ne kat yàlla moo wax ni yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla moo ne yee yéen ñi gëm yàlla julli leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne waaw aaya jooju moom ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye aaya ja ba mu wàccee saxaaba ya dañoo ñëw ci yonent bi ni ko ñun xam nañ ñun lañu nuyoo mooy asalaamu alayka ya rasulallah waaye xamul nu ñuy jullee ci yow yonent bi jox leen ab siira muy ab salaatu ibrahimiya nga xam ne bi ñuy taayee boobu la ñuy def ak riwaayaatam yu bari na ndax ñëw na ci fukki riwaayaat yoo xamante ne daanaka benn bu ca nekk wér na te wuute na ak morom yow nag bu fekkee li nga yore napp nga ko te yee benn li ñuy laaj mooy lan moo tax nga def loolu saxaaba ba ñu laajee yonent leen a jox aw aw aw yoon wi def leen lii damaa jàpp ni bu amoon leneen lu gën a lu dul lam leen def loo dam leen def loolu la leneen bi ci def mooy al ibadaatu kulluha tawqifiya borom xam-xam yi ñu ne jaamu yàlla yépp taxaw rek ngay def bañ la defal waaye sañoo jiitu ngay def lu dul jaamu yàlla nag gépp goo xam nit ñu ngi koy def ci amul sëslaay ci yàlla jii su booba yàlla du ko nangu loolu laa waxoon waaye ma ne ko ma ne damaa jàpp ni façon ba Abubakar doon def Omar di ko def di ko def Ali di ko def saxaaba ya ñett ñeenti téeméer ak lu topp yéen nga xamante ni teewoon nañ bayaat ñooñu daal lan doon def damaa jàpp ne daal ku ca boy ba daje suñu borom daje nga ak borom ci lu kon xawaay ay xawaay ay règle yi ñuy wax ma nekk ci nag di xam ndax lii kat lu mu war a topp la lii kat waruñu koo topp ndax kat lii yéen ñu jàngale na ko wala jàngale wu ko inna xayra al hadi hadi muhammad yéen bi saa bu tudd da ko doon wax li gën ci li ñuy topp mooy yoonu muhammad li gën a yées li ñuy topp mooy safaan ya te lépp safaan bidaa la te bidaa bu nekk day xamal borom safaan nu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiqi àddina ju àllaaxira nu ngi ñaan yàlla mu saxal na ci sunna dimbale ñu ñu doxee ci basiira ba mën a dégg li nga xamante ni mooy njàngale yi mu yónnee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam allahumma jaal alquran alazim rabia qulubina wa nuura sudurina wa jilaa ahzanina wa zahaba humumina wa humumina nasaluka ridaaka waljannata ya rabbana wa naudu bika min saxatika wannaari ya rabbana wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain